ba tax na sax eh, benn waay boo xamante ni ab policier la waaye Bissau Guinéen la buy woo ci tur eh, solo sam nangu moom nag eh, nga xamante ne nii ami d'enfance Sadio maane la moom yàgg na sax toog ci wax rek ni que moom ak Sadio Mané ay xarit lañu. et que ñoom yàgg nañu footballandoo euh, temps booy waaye nag jamono ji comme que Sadio Mané star planétaire la ñu bëri daanuñu ko woon a gëm moo tax moom euh, solo moomu le dafa daal di def euh, tout rek daal di dem fa nga xamante ni moom moo ca aéroport ba jour bi nga xamante ni ñoom Sadio Mané ca lañ doon ñëw. ba tax na rek euh, moom euh, Sadio Mané ba mu yegsee ca euh, aéroport ba rek moom solo moomule dafa daal di def tout ngir gisanteek ak ki nga xamante ni moom moo di Sadio Mané moomule. waaye moom solo moomule euh, ba mu gisee Sadio maane rek daf ko daal di euh, fàttali li nga xamante ni moom moo di euh, Tamboy ba tax na mu daal di yëkk ci benn photo boo xamante ni photo groupe la ñoom ñu ngi ci woon Sadio maane moom ak yeneen i xale. waaye nag Sadio Mané ba mu gisee photo boobu rek dafa daal di reetaan ñoom nag ñu nekk eh, di fàttaliku li nga xamante ni moo di ay seen souvenir d'enfance mu nekk la nga xamante ne ni dafa daal di neex trop ci ki nga xamante ni moom moo di Sadio Mané waaye tamit neex ci ki nga xamante ni moom moo di solo ndax daal dina retrouver li nga xamante ni moo di ami d'enfance am ndax ñu bëri ñoo xamante doo noonu na leen wax ni que Sadio sama xarit la waaye. nag ñoom gëmuñu ko woon ndax solo moomule ba mu nekkee xale rek eh, da doon dem ci eh, dëkku Sadio moom moomule di eh, Bambali doon fa football li Tambooy ba tax na sax li nga xamante ni moom moo di Sadio Mané moom nag gannaaw ba nga xamante ni dafa daal di nekk star planétaire ek solo moom policier la foofu ci Guinée Bissau ba tax na nag looloo waral dañ ko daal di xeeb ci ki nga xamante ni moo di eh, Sadio Mané waaye nag eh, temps bi daal dina koy eh, jox dëgg ndax nag moom daal dina def tout ba daal di dem gisanteeg ki nga xamante ni moom moo di Sadio Mané image yi nag daal dina nekk lu nga xamante ni daal dina rafet lool. di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. information